ne yéen a ngi topp l'invité de la rédaction comme ni ñu ko baaxoo defee rek tey jii nag ñu fa yéene ànd ak Nar Samb responsable politique APR ci Touba euh, Guédé Kawsara nekk tamit ci université bu Bambey ñu fas yéene waxtaane ponk yu bëri yoo xam ne dina soxal askan wi naar ñi ngi lay dalal jàmm ci 24 actu yi ma bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay topp. 24 actu di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu vraiment seen liggéey lu am solo la. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni ñu taataan déglu émission bi nga xamante ni jàpp nañ ni buñ ko waxee ay nit yu jërëjëf euh, Naar wax naa ko sànq bi ma lay euh, nuyoole ak askan bi bi ma lay présenté euh, nee na responsable politique nga waaye nekk tamit ci université bu Bambey ndax mën nga ñu tracé waatal tuuti rek ci sa jaar-jaar ci wàllu politique. jaar-jaaru politique xaw na yaatu tuuti. parce que maa ngi commencé politique Fatick en 2000 euh, ànd ak ki nga xamante ne actuellement mooy président de la république Macky Sall. boobu mu nekkoon di soxla maire Fatick. ñu jàpp ko jàppale ko ba mu am maire Fatick. fa lañ commencé doore fa politique euh, di dox di dox di dox ba 2007 aussi ñu ànd ak président Macky Sall bii actuel euh, di def tour du Sénégal dox. Euh, Sénégal bi yëpp ñu euh, ànd moom fu président Abdoulaye Wade waroon dem ñoo koy def trois jours ak Macky Sall bi en tant que premier ministre euh, ñu ànd ak moom dafa teeree ba mu baax président Abdoulaye Wade war a mën a ñëw kon loolu aussi suñu jaar-jaar la bi ñu paree 2009 président Macky Sall génn ci fi nga xamante ni moo nekkoon PDS. Mm-hmm. xàll 2008 xàll 2008 la mu xàll yoonu boppam. Mm-hmm. ñu ànd caag moom ci xàll boobu mu xàll yoonu boppam 2009 euh, ñu joxaat ko mairie Fatick 2010 euh, yàlla def ñu am euh, ki nga xamante ne moom mooy si doolu yàlla na ko yàlla dimbali jàppale ko parce que leader la boo xamante ne fii ma nekk di fa liggéey si université Bambey moom fi yóbbu en 2010 ci la ma fa yóbbu. yàlla def aussi. Mm. mu embauché ma fa. Mm. ma di fa liggéey ba tey jii mm. kilifa bu fa mën di ñëw fa fekk. te gën naa ni si 14 jours fii ak 60 ans fa la may bàyyi. ci cadre politique aussi. ci lañ yëngatu bu baax a baax si politique si au niveau de Fatick. ñu dem ba ci biir ñi nga xamante mooy sama waajur bu góor ne ma la ngay def Fatick ñu def ko Touba moom mooy kër mm-hmm. ma transféré sama électeur mm-hmm. Touba Guédé mm-hmm. di voté Tindodi d'accord jàpp ci li nga xamante ne moom mooy développement d'accord d'accord xam naa dinañ ci ñëw euh, mais bu ñu la déggee euh, jaar-jaar bi yaatu na ci wàllu politique mais ci président Macky Sall ci nga doore lan moo waral choix bi lan moo waral nga tànn ko ànd ak moom ci politique ba li ma tànn ku jige askanam nekk koo xamante ni tey dafa bëggoon dafa bëgg ndaw parce que maa ngi fàttaliku en 2007 2006 bi ñu ko falee PM dafa ñu woo ba mu ñëw 3 heures du matin mu ni maa ngi leen di ñaan yéen waa Fatick wala jeunesse bi bu kenn jàpp ni dañ dañ ma fal ci euh, euh, PM man may jël xaalisu réew wala leneen di ko jox jeunesse su Fatick wala waa Fatick lépp loo xamante ne ay chantier la état war ko joxe dinaa def le maximum pour mu mu waa Fatick am ci. kon loolu dafa yokku. mais est-ce que est-ce que est-ce que Fatick li mu war a am dëgg-dëgg parce que souvent ñu bëri dañ koy wax naan président fa la dëkk mais defarul Fatick yow en tant que koo xam ne peut-être euh, Fatick yàgg nga fa lan nga ñu mën a wax ci loolu. ku xamoon Fatick démb ak tey jàpp naa loolu moom kenn wareen dëw boo demoon tey xam Fatick en 2000. nga ñëw fa en deux mille euh, bi mu nekkee PM rek. Mm. nga xam ne. lan la lan la fa def luñ mën a teg loxo loo xam ne. bëri na bëri na boo demee tey mm. euh, Fatick. Mm. Euh, li nga xamante ne ndox mu neex la ñu naan fii toll. Fatick boo ko demee berche du sud bi nga xamante ne tey lépp lu mën di xew muy lu man di xew ci réew mi. ci biir Fatick. loo xamante ne nit ñi mën nañ fa dajale. Macky Sall da ko defar ba mu taaru def ko ci biir digg dëkk digg dëkk bi. tëli yi nga xamante ni président Abdoulaye Wade commencé woon na président Macky Sall le maximum pour loolu am. Mm-hmm. tey boo fa demee jamono ji ñu toll bi mu jëlee nguur gi. Mm-hmm. tey am na benn pouvoir boo xamante ni. benn boulevard boo xamante ni. Mm-hmm. Euh, président Macky Sall da ko jël innové ko. def ko def euh, police ba. gendarmerie. mais tribunal lépp da ko jël. Uh-huh. tabax ko mu nekk ay bâtiment yu bees. mu toxal administration bi. mais est-ce que loolu tuutiwut ci ñaari mandat ci dëkk bu toll ni Fatick ak jamono fi mu toll. non usine bi defar meskit. si ëpp am na fa. Mm-hmm. am na yeneen ak yeneen. usine bi kan moom fi def usine bi pour yow. Macky Sall moo fa def. Mm-hmm. si nguuram la commencé. Mm-hmm. si nguuram la fa àggale. loolu lépp ma nga fa. tey jii assainissement bi ñuy wax nii. tey lu bëri bëri bëri président Macky Sall def na ko biir Fatick. parce que am na carte yoo xam da doon taa. Mm. tey jii boo mm. mu taw ba kon daal yow xam naa ne <laughs> yaa ngi koy dressé bilan moom Fatick nooy na daal ci pour président quoi. waaw du lépp xam nga. Mm. Euh, xalamu daju suuf. te euh, dooni fépp baax na. parce que fépp baax na amul fenn. mais jàpp naa ne. Mhm. def na ci li nga xamante ne gëm nañ ne. Mhm. Euh, le maximum. Mhm. li naa la maximum def na ko. Euh, ñu dikk ci sa rentrée politique ci Touba euh, ndax mën nga ñu leeral parce que wax nga ñu ne dañ la wax que ni nga jógee Fatick léegi nga ñëw installé wu fii nii Touba di fi doxal politique bi nga dikkee yan leader nga àndal ci liggéey bi ak naka nga installé woo fii ci Touba ba ba base bi nga fi am fi mu toll nii nga am ko fi. waaw Seydou man bi ma dikkee Touba jàpp naa ne sama waa koñ sama waa quartier. Euh, accueillir nañ ma jàppale ma jàpp ma tette ma ba fu ma dem man fa ñimee taxaw jël micro wax parce que politique base la te boo amul base mënoo wane sa incarna li ngay incarné politique mënoo ko wane bu fekkee amoo base doo ñimee taxaw si digg nit ñi ni leen nañ def lii wala nañ def la mais ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ay kilifa nekk ay responsable politique xëy na ñu dëkk koñ amuñu relation yoo xamante ni euh, relation yoo xamante ni relation yu yu yu yu am solo la mais ndaw ñi nga xamante ñoo dëkk Guédé moom ala kulli ñëpp. moom hmm. ah, mais bu nan ngay waxee que ni yow boo dikkee ci dëkk kay nekk euh, di politique xëy na responsable fi nekk bokk ci APR au moins di nga ci am koo lëngool pour que mën a dem ndax ku jiitu ci néeg bi moo lay wax ni ngay toogee peut-être. mën ma jiitu si néeg bi fii si si si département bi. Hmm. wala si commune bu Touba. Hmm. mais mënuñ ma jiitu si politique. am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi leen di woowee responsable jëkkuñu ma politique gënuñu ma xam lan mooy politique mais nag tey du ma gëm koo xamante ne gis naa nga ni nga doon ànd ak nit depuis 2000 ba léegi nit kooku changé wul kooku nga ñëw naa damay ànd ak moom. daa am ñu fi ànd ak nit 2000 boobu ba léegi changé wul. responsable ñi si ëpp ci département bi surtout commune bu Touba. ñi fi am ay nit yoo xamante ni tey boo leen gisee doo leen ñëwee bay dem di ànd kon daal dangay jàpp ne li ñu war a def lu bëri dafa am lu des. defuñu ko. da da desul dañoo deful li ñu war a def. Mm. parce que bu fekkee da yor ay ndaw. muy ay politiciens nga jàpp ni kii suba mm. dafa war a jël poste bi nga yor mm. ah ñu tey di nga leen jéem a sax yéege ci benn escalier bu subaa ñoom ñu mën a àggal si benn escalier mais defuñu ko da nga ñëw ñu may la dix mille wala mille francs te man soxla wu yooyu. te am na ay ndaw yoo xamante ñu gëm seen bopp comme man ñoom soxla wu leen gënal mooy ñu jël seen yoonu bopp. doon na dina métti si ñun suñu as tuut suñu ñu bokkoo suñu askan. loolu moo am solo. mais est-ce que du këral interne yi nga xam ne mooy am ci seen diggante maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a nekk APR jubóowu leen moo tax euh, ndam di leen jafe lool ci Touba. jubóo man li ma jàppee jubóo ak dëngoo. xam nga dëngoo mooy ñaar ñi nga xamante ne xëy na bokkuñ fu ñuy sotti nañ bañ dëngoo. mais nag ci ay xalaat ay xi idée mais nag APR Touba moom kenn du na wax ne ñëpp ànd nañ moom parce que bëri na ay jafe-jafe souvent ay responsable yuy xuloo fii fii loolu bokk na ci. ñëpp mënuñu ànd parce que du bëgg benn dara bëgg bëgg benn mbir nag il tamit ñoom ñu boole seen i mais bu fekkee bëgg nañ loolu jàll. Hmm. bu fekkee liñ bëgg bëgg nañ jàll. da kon da yow bu ñu la déggee dafa mel ni dafa am ñu nekk ci parti bi te bëgguñ mu jàll. c'est ça problème problème bi loolu am na ñoo xamante ne tey buñ sañoon. Hmm. tey président Macky Sall duñ ñu ngi ci biir parti. biir parti. ñoo xamante ne yow xam nga ci ay nit ñoo xam ne. ñu bëri man xam naa ni ñii tey. Hmm. juguñu woon pour président juguñu woon président Macky hmm. ndax lan. tey lu demee lu mel ni euh, suñu zone. man maa yoroon finance. zone 7 bu Guédé. boot Tindodi boot Sora boot Alié boot yëpp lu presque lu mat ay sept wala huit quartier moo ko boot. tey bu demee ba li nga xamante ni moom mooy euh, Tindodi bi nga xamante fa la ñuy voté représentant bureau de vote bi nga xamante ni ñi war a siéger ci bureau de vote mënuñu lire sax benn syllabe wala benn mot. nga xam ni kon kii ko fa indi bëggul bëggul président Macky Sall nga ñun dox nañ toog. commune bi ñu demee ñun en tant que des jeunes responsables gëm suñu bopp. dem leen ba ci ay bureau ñu ñu man naa su kii siège ñëw ni lu man lan laa fi wut. su ma ñëw. Mm. su may su ma paree lu may yóbbu. Mm. kon ko xamul. Mm. la ko fa yóbbu. xamul lan la war a yóbbu. ñun aussi ñu alerté. boo xoolee réseaux sociaux yi alerté dañ en tant que responsable en tant que jeune. woo ñi nga xamante ne ñoom la concerné muy kilifa yi. ñu leen nag fii de am na ay fuites yoo xamante ne ñun bëgguñu ko. fuite bi maanaam. Ah, euh, en tant que parti bu toll ne APR. responsable nekk fa. ki nga xam mooy coordonné euh, zone bi. nekk fa. ñu am ay problème bu représentant de bureau. loolu moom jàpp naa ni nekkul loo xam ne war a mën a am la. nga dem Tindodi. sur les sept bureaux de vote. cinq bureaux de vote moo fa am représentant APR. bu ñu vérifié fiche yi mën ko gis. loolu lépp ñun ñuy dox di si wax. kon ñi ñi nga xamante ne ñoom ngaa ko loolu est bëggoon nañ euh, président Macky Sall gañe hmm, loolu lépp loolu lépp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne bokk na ci li leen gàllankoor ci Touba. si li li ñuy gàllankoor ci Touba. Hmm. mais am na beneen chose bu ñu gën a gàllankoor. Hmm. parce que ku xam xam ni Touba jox dañ ko jox bopp. am na ab leader boo xam dafa jóg. dem ca ginnaaw di ko kar di ko interdit pour mu dugg. kan la soxna maam xarit. te rajo yeeg télé yëpp gis nañ ni lii. Hmm. baaxul te ñu néewuñu. en tant ci ci yéen la nekk. déggoo li mu la hmm. man hmm. du mu wax lu ma gëmul. kon yow boobu da nga koy ñaawlu. rafetlu ma que Abdoulaye taalibe la comme man. taalibe la comme yow. taalibe la comme keneen. dafa war a ñëw si dëkkam ziar. dafa war a ñëw seet seet seet ci ay sëriñ yëpp. c'est problème du la leen. kon buñ fekkee ñëw na en tant que ancien président kenn du ko empêché pour mu dugg Touba wala ñu ko euh, créer pour ñi nga am ampleur yoo xamante ne hmm. day nga xamante am ci APR. xam naa dinañ ci gën a dikk ñu ñëw euh, nag euh, gerte gi nga xam ne fi nga nekk ak sa lëngoo ak yenn ci kuréel yi nga xam ne ñoo fa nekk association yi ndax mën nga ñu ci leeral mbir yi ni mu demee. waaw association yi nga xamante ne ñoo nekk gerte sama lëngoo ñoom hmm. dafa am solo. Hmm. li muy dee mooy bu ci am. loo mën di def di nga ñëw bésu man ñu ma ah ñun dañoo bëgg a def nii lan mooy sa xalaat avant tout bu ko defee man ne nii la sama xalaat nii laa bëgg nii la nii laa jàpp ne moom mooy baax ñun ma ah ñu nga wax baax na léegi loo ci mën na def ah li ma ci mën a def mooy nii bu ma amee sama matériel naa leen jox su ma amee sama xaalis naa su ma amee donc kon yow am na ay association yu nekk Guédé yoo xam ne da nga leen di taxaw si ba association yu bëri na hmm. association yu bëri na hmm. euh, euh, euh, groupement yu bëri na hmm. tey pour ñi xa ñi xamagul ci gan fànn nga leen di taxaw waaw si fànn yi ma leen taxaw mm. groupement yi mm. naa groupement yi avant association yi mm. groupement yi nga xamante ni ñoom laa créé ci biir Guédé au moins sept wala huit groupement créé naa ko yoo xamante ni maa dem utal leen seen récépissé seen euh, GPF indil leen jox leen ko pour jàppale leen heure bu financement amoon ci parti wala ci Sénégal su ma demee ma lijjanti kon ba léegi amaguñ financement xanaa kon DER bi jaaru fa. non avant DER la. Hmm, avant DER laa def la. Hmm. comprendre hmm. bu ñu demee nag ba am ni. carrément ñun lii lañ gëm ñoom lii lañ gëm muy lu leen développé. man mën naa jël sama euh, propre moyen. garanti leen pour ñu financer leen. mais nag loolu day fekk ñooñu. nga dem ba xam carrément ñii fii lañ jëm. indi projet bu nga mën leen a gérer. dem si yoon. association bi ngeen ñëw couvrir bëgg dem si. vingt rajo laa leen jox jàpp naa ne jëndal leen ndox defal leen ay café lépp loo xamante euh, euh, luy jëmmal association ma defal leen ci cadre suñu doon loolu ok mu mel ni ñoom euh, jox nañ la bopp xam naa ñu gën a xuus jëm ci actualité bi jamono ji nag daanaka li ëpp coow mooy pétrole bi ci Sénégal Aliou Sall président Sall yow. déet mais coow loo xam ne askan bi la soxal tamit petrol bi ñu naan xaalisu askan bi la ñu yóbbu ak la def nii nga ne doo ci wax. non hmm. askan bi moo ko moom. askan mais askan boobu ñooy sàkku leeraange ci seen pétrole. leeraange ngi ci seen na kooku mais comme mm. ce que jàppoon nga ne loolu mooy yoon bu baax bi rek toog ci sénégalais yi naan leen ko am preuve nga andi ko ci pétrole boo xam ne xëy na du domaine la boo xam ne du ñëpp ñoo ko maîtriser bu baax ca wax mais ay milliards yu dem tamit nag Sénégalais yi mënuñ koo mënuñ koo noppiwaale tamit quand même. déggoo doomu aadama nag boo bëggee maanaam lépp loo xamante ni xamoo kon lan moo war a nekk taxawaayu sénégalais lambda bi ci pétrole bi fi toll nii. comme président Macky Sall jàpp jël na ay matuwaayam mu ngi koy saytu nañ déglu bàyyi na président de la pare ca la muy def lu ci yoon atte muy bu doon moo ko def wala Aliou moo ko def wala Ousseynou moo ko def la ci yoon wax nañ ko def moom loolu laa gëm ci dëkk bu sell bi di tuubaa gis nañu euh, tuubaa jamono ji en tant que responsable lan mooy euh, manquement yi euh, ak priorité yi fii ci dëkk bu sell bi manquement yi buñ ci limee tey boo génn si dëkk bi ñoo gën a xam ne courant bi day coupé non du moins pas courant bi day coupé dëkk bi amul éclairage public te loolu aussi manquement la tey jii euh, li nga xamante def na ko aussi nga xamante ni mën a ñuy gas suuf te mënoo koo gis sa morom boobu rombul ñu koy gas doo ko gis muy assainissement bi macha allah. déet assainissement bi kay doo ko wax fi mu toll nii kay euh, waa Touba yi ñooy secrétaire bopp seen canal yi. digal ay taalibe li def. waaye nag am na mairie bi nag am na kuñ ko dénk quand même tamit Touba dafa am nu muy doxee. waaw mairie bi am na kuñ ko dénk d'accord naa. mairie bi kañ ko dénk. la mu war a def da ko war a def. li mu warul def du ko def. est-ce que bu ko defoon tey dinañ dem ba ñuy joxe ndigal la di si def rek seen bopp. dama d'accord ci li nga wax mairie bi. moom dafa war a euh, def. ba mën a ba mën a tudd. mu wàllu ñu wàllu ko. mais est-ce que ñu en tant que taal. Hmm. non am na lu muy def. am na lu muy def. ba lu ma ni def parce que doomu aadama bu nekk. boo sa kër. Hmm. lu bon bon def na joxe nga dépense wala. mais am na tamit am na loo xamante ni hmm. moom da war a def. Hmm. da war a def ba ñëpp sentir da ko war a def. ba askanu Touba sentir ni lii kat mairie bi moom lañ ko def condition yi nga xamante ne moom lañ joxee moom la ñuy falee maire Touba loolu mooy ko wax leen. muy lan muy bi mooy xool. kon nanga jàpp ne buñ ko doon voté daal laaj ko du fi toog. Hmm. parce que bi jox laaj ko maire yi laaj ko dafa nekkoon benn dafa yor am entreprise am gère hmm. kon sëñ bi moo wóolu ak taalibe jox ko taalibe moo wóolu. Hmm. sëñ bi wóolu laaj ko jox ko. ok euh, lan mooy priorité Touba jamono jii. jamono ji mu toll. directeur mooy comme li sëñ bi mm. moo commencé mm. muy set setal mm. ndax ngi jëm si nawet te ku wax nawet wax yoo te ku wax yoo wax tap euh, feebar te ku wax feebar bu ne yow yow mi nga xam yaay kilifa gi yow mi nga xam set setal dëkk bi yëpp comme set ñu fexe xool lamp yi nga xamante ne jàpp nañ ne ñu ngi si dëkk bi te tàkkul ndax taataa yooyu noonu ñu mën wax ñu fexe ko taat li nga xamante ne jàpp nañ mooy assainissement bi des ñu fexe nguur gi góor gën cee góor pour assainissement boobu gën a continuer ci yeneen quartier nga xam ne àgg àgg li nga xamante ne ay tali la wala ay ndox ñu fexe yóbbu ko ci santaan tey boo xoolee am na ay dëkk ay kër ay ay ay ay euh, quartier boobu boo xoolee fi leen sànq bu xatal bu baax souvent dañuy dégg question boobu boo fay dem bu tawee 5000 francs yóbbuwul la ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey li nga li li si li gën a doy waar mooy tey da ngay dugg si oto yi nga xool marché ambulant kii ngi lal fee kii lal fee kii lal fee doo mën a sax dox sa soxla boobu man parce que kenn ku ne mi ngi. dañoo war a désencombre désencombre euh, dëkk bi quoi. waaw loolu lépp war na mën a am. parce que bu ñu bëggee Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni képp koo xam ne dugg nga entrée Mbacké rek da nga war a sentir. gën a mooy Touba képp ku tabax dagg nga garab te ku dagg garab jëmbaatoo doo beneen tey Touba boo jëlee euh, Mbàkke ba fi ngay nekk boo doon compter garab bi mën nga xam ñaata garab moo fi te loolu yoon te loolu moo gën a doy waar si dëkk parce que tàngoor bi day gën a bëri euh, nooyi bi ngay nooyi dafay gën a doy parce que euh, essence ak saxaar rek ngay nooyi te loolu aussi nekkul loo xamante ne dugal na ci askan voilà euh, mu mel nag waxtu bi ñu cërale woon jeex na naa Samb ma bàyyi la nga tàggoog ñi nga xam ne ñoo lay topp ci 24 actu waaw maa ngi gërëm ñëpp di leen wax dëgg yàlla euh, vendredi passé ñëw ngeen sama kaase gis ngeen la fa xew xam ngeen ne aussi euh, waa Gédé Kaw Sara ñoom liñ gëm sax bi defee lépp lu xale bi digal balaa xa kenn jëfe ñoom ñoo ko njëkk jëfe loolu moo tax wax dëgg yàlla sant nañ leen euh, bu baax a baax gërëm nañ leen bu baax a baax euh, ñu ngi leen di euh, jaajëfal di gërëm aussi suñu frère Adama Dieng parce que tey bu relation bi amee bu relation bi amee mm. moom la mm. kon vraiment dañ koy gërëm di ko ñaanal lépp loo xamante ne am na yéene mébét ak gëm-gëm ci la mu yëngu mm. yàlla may ko baax la kon daal vraiment ci loolu di ñaanal aussi ki nga xamante ne tey bu ma demee ba man moom la waajur teg ci ki nga xamante ne tey moom moo koy liggéey mu si doom bi nga xamante si ñoo àndoon Fatick mu mm-hmm. am yéene gëm defar doomu aadama ba kooku di defar mm-hmm. kon loolu mu am solo te jàpp naa ne leader bi ñu koy wax mm-hmm. boo nekkee euh, responsable da ngay fexe defal sa suuf bu subaa koo ko mën a defal kon loolu moo tax Touba mënu ma fexe man ba am fi leader gëm leader boo xamante ni yow en tant que euh, militant yow yaa koy tane. Mm. yow yaa koy ëpp ambition yaa koy ëpp gëm-gëm yaa koy ëpp yëg mm. kon mm. ndaw ñi nañu góorgóorlu xam ni avenir Touba ci seen loxo lay def. seen loxo lay def kon daal sant naa leen bu baax. gërëm naa leen bu baax. Euh, voilà jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax Naar Samb bu nekk responsable politique APR ci Touba Guédé Kawsara nekkee tamit ci université bu Bambey tey moo nekkoon sunu gan ci invité de la rédaction Soxna Ndiaye moo nekkoon ci caméra bi Moussa Ka nekkoon ci geneen wàll gi Soxna Khady Niang ci montage bi ñu leen di jox di daje incha allah ci yeneen i jotaay invité de la rédaction jërë ngeen jëf.